ñu koy toppee mbirum incitation à la débauche détournement de mineur et viol suivi de grossesse jëmale ko ci chanteuse bu Sen Petit bi di wuyoo ci turu Dieynaba Baldé Mamadou Diop PDG ISEG ñu gën ko xam ci turu Diop ISEG mu ngi ci guddi gu bët setegut garde à bi ñu prolongé woon ca division spéciale de cybersécurité bouclé na enquête préliminaire yi jëm ci mbir moomee loolu rek di waral ni ak défermam ca kanamu procureur nekkatul mbir mu ñuy xel ñaar bu ñu sukkandikoo ci suñu ay source ci kanamu procureur bi nag Mamadou Diop ISEG bu moytuwul dinañ ko tëj ngiruk dundam ndax bu yàggul dara rek lan wote ca assemblée nationale ab loi boo xamante ni dafa criminaliser lii di viol jëmale ko ci ab mineur ndax mbëggeel gi doxoon ci diggante Diop ISEG ak ma Dieynaba Baldé dina sauver PDG groupe ISEG bi ndax nag seqoon nañ ab relation amoureuse loolu nag li koy firndeel moo di message yi nga xamante ni fekk nañ ko ci téléphonu Dieynaba Baldé ginnaaw bi ko enquêteurs yi saisiré ca yooye la message nag bokk na ca message boo xamante ni na ba moo ko bind kii di Mamadou Diop naan ko je t'aime duma la ma sa bàyyi ndax message u amour bi dina sauver Diop ISEG lu mu ci mën di doon lépp dina leer tey jii tabe fii ci réewum Sénégal